mbaadu àdduna day bëgg tukki fee ca Béthio nekk biir Touba lu doy waar moo fa xew gannaaw bi benn sëriñu daara si fee yoon benn soxna bu nekk ci néegu sëyam ba am ñaari bant te li ci gën a doy waar moo di ni bi yëf yi bëggee siiw sëriñu daara bi dafa filme ndaw si ci ay anam yu teggi newul ngir gëmloo waa tund bi ni soxna si moo ko topp ci ab enquête lépp leer ci naka soxna si gannaaw ay kàddu yu mu dénk takk der yi sëriñu daara bi daka njabar muy fàttali ni benn bés joxoon na ko ab téere fala tàmbalee ñàkk sagom ci waa ji a teg ci policiers yi ci seeni gëstu gis beneen vidéo ci portable sëriñ bi bu jéggi dayoo sëriñu daara bi nag ay atam toll ci ñaar fukk ak xaritu borom këru soxna si la bi mu sancee ci diwaan bi ak kilifa kër gi nekkoon njaatigeem sas soxnaam mu koy toggaaleel toppatoo itam taalibe yi mu dem ba nekk ndeyu daara bi ci ndey joojee mu daan ko yóbbul yàkkam ci biir néegam saa su paree li ni mel dem ba sëriñ bi liggéey ko di ko sàkketu ba jot kaa siif ci lu toll ñetti yoon ci jëfin ju ñaaw gannaaw ak kàddu yi soxna si dénk takk der yi jëf yooye nag duñ ci mën a dugg en détail naam ci njëlbeen sëriñu daara bi weddi woon na ko ni ay tuuma yu ñu bëgg teg ci ndoddom waaye bi l'enquête bi tare sëriñ bi mujjee naa nangu ni lépp moom la ci jamono ji tëj nañu ko ci maison d'arrêt et de correction bi nekk Diourbel ñoo ngi ko toppee charlatanisme maanaam njabar ci wolof viol ak siiwal nataal buy génne awra tubaab di ko wax diffusion d'images à caractère pornographique